asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu danoo jot ndigal ci jàmbaari cheikhul xadim cheikh muntaxal bachir xalif général kullu murit yal na fi yàgg lool te ànd ak wér jëm ci kan nag a sëriñ abul baraka xalifa cheikh mouhamadou fadal mbàkke yal na fi yàgg lool te ànd ak wér jëm ci nag jëwrinam ju baax ji cheikh Mamadou bashir moom cheikh Mamadou Fadal jëm ci kan nag ak ki nga xam ne moo yor kaddu kër cheikh Mamadou Fadal mu cheikh Abdoul Fatah Mbacke mu Serigne Fallou ñoo ànd ak njabootu cheikh Mamadou Fadal Mbacke gépp gis ngeen jotaay bi ni mel muy jotaay boo xam ne jotaayu njabootu cheikh Mamadou Fadal Mbacke la ñoo jëm ci bis bu rëy. muy bis boo xam ne kenn dootu ko fàtte muy la grande journée culturelle et religieuse bu Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké bi nga xamante ne moom la Cheikh Mountakha jël bis boobu jox ci ndigal Serigne Abo mu jox ci kan ndigal nag alaaji Serigne Cheikh Oumy Mbacké moom Serigne Fallou Baye Fallou Serigne Fallou nag moom la ñu jox ndigal ci bis bi nga xam ne at mu ne moom lay waajal ci grand théâtre muy journée culturel et religieuse bu Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké ren nag mu war a yemool le dimanche 22 novembre lay xew waaye nag ren dafa am ay coppitiku kenn ku ci ne te yaakaar Cheikh Mamadou Fadal bëggoon lool bis bi waaye soppoon lool bis bi di ci teew ngir lan jëmmi Cheikh Mamadou Fadal Mbacke fa ne mën nga ko faa defee looloy ndigalu ren nee na nag fu waay mën a ne ci mbooleem fédération daayiratu salaam bi mu àndal liggéey bi nañu defee bis bi mbooleem ci siège u yi ñu jàng fa alquran jàng fa ay xasida defa ay salaatu ala nabi defa ay istighfar jagleel ko kan nag Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sunu yaakaar tey ak ëllëg ak Cheikh Mamadou Fadal bi nga xamante ne daa say ci moom ba mu jeex takk ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi lool ci ànd ak wér ñaanal sëriñ Abul Baraka mu yàgg fi lool ci ànd ak wér ak mbooleem nag njabootu Cheikhul Khadim gi. ni ko sëriñ Seydou waxe rek ci njiitul comité d'organisation bi euh, journée bi nga xam ne moom lañ daa def di ko fàttalikoo moom Mouhamadoul Fadal ci ñaan ren nag sëñ bi da cee wax da cee joxe ay ndigal yu bees mooy ak coppet mooy ku ne xam ne fi jamono toll moo waral ren lu ci nekk nam daa demee du demee noonu. waaye nag li ko ci gën a yitteel ginnaaw bi mu ci jiitalee sant yàlla julli ci yonent bi sant Cheikhul Khadim bu baax ak sant ay kilifaam ak ñaanal leen mooy dafa fas yéene ren bis bi ñu waajal ko ci alxuraanul karim ju baree baree baree bëri euh, jàng xasida lu baree baree bëri def ay salaatu ala nabi lu baree bari ay istixfaar lu baree bari waaye bu ñu àggee ci bis ba it lu waaye man ci bernde ngir jox ko julliti yàlla yi sëñ bi nee na mi ngi ciy woo ñëpp mi ngi nee na nag mi ngi yëgal mboolem njabootug Serigne Touba gi nga xam ne dañoo yor daari alxuraan te Serigne Touba sax féppam alxuraan la waaye nee na mi ngi soññ ñi nga xam ne dañoo féetewoo daara yi ñu dimbale ko lépp lu waaye man ci alxuraanul karim lu mu bari bari rek ñu defal ko ko addiya Cheikh Mamadou Fadal fas ci yàlla def jàmm ak xéewal ak naataange te yàlla jële fi mboolem li nga xam ne fitna la ci réew mi yàlla dàq ko fi ba mu jeex tàkk ci darajaay Cheikh Mamadou Fadal kon mboolem kuréelu jànkatu xasida yi kuréel yi nga xam ne dañu durus wala ñuy def njàngum yëkkati wala ñu daa ñëw ci bis ba di ci feeñal seen yéene kon sëñ bi nee na ndigal la ren mooy fu waay nekk na fa sax te defe ko ni nga xam ne moo dëppook ndigalul sëriñ bi. di wax si turu fédération Daayiratu Salaam di ko tàmbalee si quatorze régions yi nekk si biir Sénégal képp koo xam ne ab jëw di nag te nekk foofu ñu ngi lay yelwaan di la ñaan nga wàcce kaamil jàng xasida def ay salaatu ala bi comme ni ko sëñ bu bëggee. soppite bi nag mooy feebar bi moo tax comme feebar bi moo tënk ñëpp ñu bëgg képp fu waay nekk muy ak taalibe rawatina ab jullit ñu lay ñaan nga wàcce kaamil foofu def ay salaatu ala nabi ay istifaar di wax jëwriñ yépp muy jëwriñ Omar Gueye di jëwriñ soxna Daba di jëwriñ Yaasin Njaay ak soxna Debbo ak jëwriñ jëwriñ Maxa Abdou Aziz ak jëwriñ Almaami kamara ak Danloo ak soxna Ndey Koddu ñu ngi wax ak jëwriñ soxna Bëgg Fàllu nekk sa na kon ñu ngi sant ñëpp di ñaan ñëpp ñu taxaw si bés ba bés bi nag le 22 la novembre ñun nag ñu ngi koy defee maanaam euh, Lansar si siège bi kër soxna Daba Sarr kon bëgg nañ ñëpp fekk fa. Mm, fu nit nekk rek yaakaar yàlla di ab jullit rawatina ñu bokk diine yi. ñu ngi la koy yëgal rawatina ñu ñu bokkal Serigne Touba di ko dala ci Cheikh Mamadou Moustapha ba ci Serigne euh, Mourtada mi nga xam ne mooy turandoo bis bi eggaguñu ci nag defaguñu ko waaye nag nii ñu koy defee ko suñu néew rek ak di ci yelwaan suñu bokki dongo yi ñu xam ne seen mbokkum tali bi daal mooy xam le ne bis bi daal nañ ko daaw defee rek lañ ko bëgg defee alxuraan moo ci daa jiitu moo ci daa mujj euh, buñ noppee teg ci xasida yi Cheikhul Xadim yi def ci salaatu ala nabi ta il ixtifaar yàlla mag ñi fanu ne yàlla yokk seeni leer mag ñi fi desit nag yàlla bàyyi leen fi ba lu ñu yéene ñu eggale ko tañ bokk kook ñoom li jiital suñuy kilifa sëriñ Muntaxa mi xam toog jotaayu Seexul Xadim yàlla yàggal ko fi ba li mu sémb lépp mu ko rawatina suñu kilifa sëriñ Abo Mbakke jaarale ko Cheikh Mahamadul Bachir ak sëriñ Abdul Fatah xam ne lu nu wax rek seeni kàddu la ko wax njaboot gi nag ñëpp a ngi fi rek sëriñ Takko mi ngi ni toog sëriñ Abibu sëriñ Ahmadou Rafaylu kenn koo xam ne wuute na ko ca nañ ko daa defee amu ci kon nag lan ñuy def rek mooy xam le ne daal dañuy ñaan daal ku jàppale ci ñaan sàkku ñaan rek ndax ab donga sañ naa bokk ci moroomim dongaam di ñaan ñu ñaan ci ci réew mi comme ni ko sëriñ Mountakha waxee rek ci ci lii xew nee na jëmm la jëmm ji nag ñu ngi ñaan rek ngeen ñaan yooyu ñu bëgg ngeen defal nu ko defal ko suñuy waajur yi ak ñi ñu am ñëpp rek ngeen boole ci loola rek mu doon jëmm te wéy la cay dolli ko nag mooy xew-xew yi ñuy dégg ci géej yi rek amunu lenn lu dul Sénégal amunu lenn lu dul suñu bokk yi ak gone yi te nii nuy demee ci gaal gi nag bu ñu sañoon ñu ñaan ci rek yàlla def ci ndox mu sedd bal lu ñu bëgg rek ñu amee ko fii bu ñu demati fenn di ñaan ci réew mi yàlla def fi jàmm ak mboolem adduna bépp rek ak mboolem julli di fu nu ne fu julli di rek fu julli ne rek ñu ngi ñaan jàmm ñoo nag amuñu dul lislaam lu dal lislaam naqari na noonu lu lislaam lu dal lu dal lislaam bu dee jàmm neex na nu bu dul jàmm tam neexul ndax amuñu lislaam ci lislaam la ñuy judd ci lislaam la ñuy faatu amuñu kenn ku du sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa léppam lislaam wa salaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu noo ngi tàmbalee ci sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di ànd ak yéen di sant sëñ Tuubaa ni mu nu waree di sant Cheikh Ahmadul Fadil mi nu ci doonale te moom jotaay bi di sàkku it ko sëriñ Cheikh waxee Euh, mboolem mi waxe ko ni ñoo jot a wax suñu as ak suñu muur maamun waxe ko ni loolu rek lañuy la ñuy fàttali loolu la ñuy mottali bis bi daal sëriñ Seex taxawal na ko ngir sant yàlla ci boole gi mu ko boole ak sëriñ Fallu te mu mat ko lool kon sëriñ Seex jaakaar ji nga am ak cant gi la war war na nun ñëpp nga di ko def xamal na ñun ñëpp nga koy defal nun ñëpp noo ko bokk kooku boo ko defee rek defal nga ko ñëpp kon yàlla na la ci yàlla fay yiw te mu yàgg lool te ànd ak jàmm te ki nga koy defalee nangu nangul mboolem ku ci am ku ci am yéene nu ci woo nag képp koo xam ne kii ab jullit nga wala nga bëgg Sëriñ Tuubaa donc la ciy woo woote nag la sunu waajur daan wax bàyyi seex coro ne Sëriñ Fallu da ko ne nit ñi day ku leen woo ñu ñëw ku leen laaj ñu jox la boo leen wooyee yàlla nga xam da nga leen doyee boo laaj yàlla nga xam ne nga koy def suñu seex nag mel na ne bu wootee kon xam na li muy woote lam mu ci la ba ñu xam ne nam leen def gaa yi leen nu sant sëñ kenn ku ne xam ne ne ab doy na woote te bu ko defee ba noppi kenn ku ne xam ne wër na ci moom jekk te yàgg na ne ki yaa ko xam ne li na ko sëñ a jàpp doyut jàppal bu baax a baax daal nag ci nañ ci jàmm te fekke ko defe ko dañ ko daan defee lu dul soppi ko jamono ji tolluwaay rek moom ñu soppi ko kenn ku ne nanga mbooloo ma nga am wala ñi nga xam na nga leen wax bu baax a baax ñu jàpp ci liggéey ba mu ba mu demee na ko bëggee la cay des it nga xam ne mën nañu ko tëjee mooy ki nga xam ne bi moom la sëñ Cheikh taamu ñu tuddee ko bis bi muy Cheikh Amadou Moutada koo xam ne Sëriñ Tuubaa la jur doy na mel ni mel doy na waaye koo xam ne ba adduna bu ñu yàlla ñu xam ne yaa moom ci adduna bi yaatu lislaam loolu doy na ci mbaax waaye li ma ci wax rek mooy bis boo xam ne mag dama ko nettali nee na dañoo toog ci Sëriñ Fallu Sëriñ Moutada moom ñëw fa nee na bi ñu ko bi ñu fekk Sëriñ Fallu ngi toog ci pilaan bi bi ñu ko nee Sëriñ Moutada muy nuyoo fi mu toog ci pilaan dafa ne rosee tànkam ci dàll yi dàll wa ci mbodd daal di ñoom bisimilah ba suñ ñëwee ba waxtaanee bay dem nee na bi ne am ñan leen gunge leen ko kooka nag nee na man damaa toog ci jataay ba nee bi sëñ Moutalla jógee ba wannu ginnaaw day dem sëñ Fallu di di ko xool ba séenatu ko mu ne cey ak a baax jikko waaw loolu nag kon boo ko tuddee bis bi wàcc nga koy di sant ñëpp di ñaan ñëpp di ñaan képp ku jàpp daal la bëgg yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla defal noo ngi sant nag mbooleem njabootu sëñ Fallu bi ndax sëñ Seex yow wootee ñëpp kenn ku ne dana ci bàyyi xel ndax lii sëñ di wax bàyyi fàllu loolu ñëpp bu ñu doon tudd kat ko kon yow mi ko tudd fexeel ba doolee góorgóorlu doolee joxe sa bopp sëñ fàllu donte jox nga ko noonu ko seere waaye ñëpp nañ ko doolee wax noonu taxan foofu rek leen war a ndax moom la mu wax bëggut doon dara bëggut a nekk dara lu muy dugg ci biir sëñ Touba kon noonu bind nañu ne yéenam jooju ñun ñëpp dugg nañ ci kon buñu ci duggee nañ fas yéene ba mela woowee mu mel ak la bëgg ak la muy doxee lépp ñun ñu fexe mel ko aleykum salaam wa rahmatullahi wa